Rewmi 24 TV. Daouda Mine bi ñu nii moom gone yu neex sax xam nañ maanaam gone yu tuuti yi di judd bëri def xam nañ xam ne mënoo nekk machine mënoo nekk procureur benn affaire mënoo cee nekk juge ñaari yoon mënoo cee nekk mun na ne dañ ne loolu mun na kon kay jur kon kay jur kon kay jur ñoom siis ak siis ak siis ak procureur ah bu pante bi ñëwee bu bu bi ñëwee nga nekk juge moo gën a simple moo gën a yombul li ñu def loo amul juf kat noonu rek la ngay jël ngay jël pour ñuy dox gis ak procureur saa ji di gën a métti. problème bi ñëwee nga nekk procureur bu jour at bi ñëwee nga nekk juge mu jeex tàkk wala ñu bind juge bi comme def procureur kese. moo tax suñu loi yi li muy bon bon bon bon bon wallaahi xasim mën nañu ko gërëmee tubaab yi billaahi wallaahi taala bu doon néegri yi ko bind. barke alxuraanul karim góor a soog a dëkk Sénégal billaahi wallaahi taala yoo gën a bon kuy bon ci àdduna mboolem kuy bon ci àdduna rek nit ku ñu la gën a bon particulièrement Sénégal loi yii sax maanaam boo ko liiree xam ne ki ko doon bind nit la au moins xalaat na doomu aadama waaye gis nga ni ñu koy appliqué ñoom waaw toujours rek ñu def ci jalgati boo xam ne maar day daal imaginer tey bu doon loi yii nii ci xelu nit ñi ñun ñii la génn kon àdduna tukki koy di ko xas de waaye naan loi tubaab yi léeg-léeg ma dégg ab nit waa naa a tax ñu naan loi tubaab waaye wallahi na asim bu doon nit di jullit ñoo ko bind barke alquranul karim golo sax doo dund Sénégal golo sax kon ndax xam naa ne ci gis kon mbon ñëw téef ak mbonteeg woo xam ne ki nii golo sax du ko mën du ci mën a dund ñun tubaab dàll tubaab sax doy suñu morom dañoo gëm yàlla dañoo xam luy jullit dañoo doon dara juif ne koo ci def ni booree ba nga woor ko ku leen gën a la gën a xam ne la ñu def lépp dara tegu teguwu ci yoon sax di lor ay jullit kooku si kooku jullit la nañ indi nañ nañ laa gars yi neen procès Sonko bii dañ ko laaj ne ko ñu dem yóbbu ko ci France ñu àtte la ak ñu yóbbu ko ci Sénégal yi ay ñun Sénégal yëpp ñun ñu bëgg Sonko ko ñu ne ko nañ dem demal gis juif na ca France de wala ci animisier nekk France ñu àtte la billaay wallaay taalaay kon duñ julit waaw kon duñ julit te ñun ñëpp suñu aqulaay taxalaa xam nañu siis yi ñu ne ay jullit wóoruwu leen kenn wóoruwu leen nag amul benn nit waaw amul benn nit waaw lii Tahir Sall wax keroog gars yi seen loo fi nekk rek waaye amul benn nit bu gëm si Sénégal kenn koo gëm nguur gii di bu yàlla nga xam ne moom doo ngay buur bu fi xëyoon tey rey Macky Sall tey mu dee moo xam nu mu deewee tey jii bu subaa ñoom balaa mat deux mois trois mois ñoom ñii tey naan la institution judiciaire respecte la justice ñoom Mame Mbaye Niang ñii ñoo lay njëkk a wax ne Sénégal amul justice. parce que la réalité mooy amul benn nit buy noyyi bu gëm justice Sénégal amul amul kenn ku ko gëm ñi nga wax ñëpp dañoo xam ne arrangé na leen loolu mooy problème bi arrangé nañu d' accord waaw kay waaye amul ku ko gëm moom il nous arrange aujourd'hui parce que le même Macky Sall lu ma ko fii conseil constitutionnel wax aussi Sénégal yi bi mu nekk opposant pourtant moom moo leen tàgg tey ne ñu baax la parce que loolu mooy wax ni justice moom ku mu arrangé moo fi nekk waaye justice baax na mu amul fi amul koo gëm ku jàpp ne arrangé na la nag moom arrangé na la boobaa nga défendre ko waaw la preuve mooy gis nga bëgg démb juge bi àtte Ousmane Sonko lu ko ma jàmbal jaajëf ku amul ci àdduna gis nga taliko lu ko ma jàmbal jaajëf ku amul ci àdduna pourtant ay juge lañ comme juge Maham Maham Diallo ak Amadou Diouf waaye ñii leen arrangé ñii nga xam ne dañuy jubal arrangé wuñ leen kon ñoom bu ñu nee dañoo gëm si gëmuñu si si si si mënuñ avancer liñ gëm